depuis démb maa ngi jot ay pression particulièrement des pression amicales seeni i naataangoo yi waa Jamra yaa ne yore nga liste Dubaï bi waaw baaxee ñu ko bokk 53 eh, victimes ah Jamra daal day wax ne am na liste rek te te te kenn du gis liste ma di leen fàttali ne en 1985. bi Jamra waxee ne yore nañ listu franc-maçon sénégalais yi nekk assemblée nationale ci gouvernement bi ak dans les hautes sphères de l'état du dafa am benn ambassadeur Abdou Diouf bu naan dañuy fenn ñu ne ko baax na <laughs> sa ëllëg sa ñu multiplier ko def ko ñetti paquet jël benn liste bi yóbbu ko euh, grande mosquée Alaaji Rawane Mbaye bu rue Blanchot beneen paquet bi yóbbu ko fii ci grande mosquée de Dakar beneen bi ñuy jo yóbbu ko si juma alaaj Yaxya Jóob bu Gueule Tapée ñu ne leen bàyyi leen ba pàyyi julli ba noppi waaye bu ñuy sëlmal ne salaamaaleykum bu ñuy génn rek ngeen joxe ko rek ñu génn di joxe liste yi paa di xëccoo seen i mbaxane yi daanoog seeni i kaala waaye aw joxuma yow awma ki ne ko joxoon naa la mu ne ak ah, kii laa ko jox mu yëy ku liir rek ne lée Jamra jaaxanul de framason maçon yaa ngi diw awoka framason diw député ay waay dëkk bi yàqu ne woon liste waa ji doon ne list amul moo dem porter ñu plainte ma ne ko ah eh, looy porter plainte nee nga liste amul alors jamono booba ñi doon def pression ci Latif naan amuleen liste jamono day coow rek ba pousser ñu ba ñu génn liste bi ñoom ñoo am lâcheté bu day ni ba liste bi dafay dégâts yu bari ci dëkk bi ñu dem ci presse bi particulièrement le journal de euh, maam Less Dia naan waa Jamra ñoo soxor am na sëy yu tas am na xale yu menacé ne dañuy euh, euh, suicidé wu bi ñu yëgee ne seen baay franc la y a eu deux deux deux départs en exil waa Jamra yéen a bon les mêmes personnes yi ñu doon laal si ñoo wax loolu voilà le Sénégal ay combat par procuration rek ba ñu demee ba 2016 amu fi woon benn euh, écrivaine tunisienne Hela Wardi bind benn livre tuddee ko les derniers jours di prophète Mohammed maa ngi remercier Abdou Mbaye ancien premier ministre moo ma woo waa Jamra xanaa gisuleen lii ma ne ko ah, mu ne ma lii de man vingt pages laa si lire rek sama rango ñuy tuuru ndax soxor li ñuy yàq Seydina Mohamed maa reeta livre bu ñu ko fi jaayee xëy na yow mën na la naqari man Abdou mbay mu naqari ma ñu muñ ko mais am na ñoo xam ne dañuy mën nañ cee xaalu bakken mën na cee rot immédiatement dama koy résumer c'est une Jamra alerte ba ñu alerte premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne moo ñu woo dama bëgg ngeen xam histoire liste yi ñu ñuy laaj ay Jamra day coow liste rek te amul liste formation yi moom c'est clair liste bi génn nañ ko am na ñu daw génn dëkk bi Mohamed Boun Abdallah Dionne woo ma nee ma Macky Sall moo ma yebal ci yow mu nga Casablanca dafay noppaliku ji de de la fatigue de la campagne électorale pour le référendum euh, du 20 mars 2016 nee na dégg na ngay wax listu ay librairie yu fiy jaay libre buy saaga yonent bi ma ne ko waaw mu ne ah loolu musiba la waaw dinaa la boole avec le ministre de la culture Mbagnick Ndiaye ngeen liggéey ci ma ne ko d'accord ca ngoon nga Mbagnick Ndiaye woo ma nee ma maa ngi nii amee mes côtés avec euh, El Cheikh Dramé c'est l'actuel commissaire central de Dakar mais en 2016 il était le commissaire de la sûreté urbaine président neen daal ba ñu mënee jox liste bi ñu ñu jóg ci point de vente yi ma ne ko d'accord jox ma sa email ma jox ba alors ca diggante bi benn oustaz responsable la si Jamra taxawuma waaw waxtaan li nga wax ne yore nga list point de vente euh, livre bi euh, gisuma njëriñu nga di ko wax état lu tey nga jox ñu ko ñun ñu lijjanti ko ma ne ko yow président wu ñetti daayira nga ak sa daayira bu bari ay tampon ki caché ban autorité nga am pour joxe ordre ñu interdire de vente l'ouvrage sur le territoire am nga sañ-sañam waaw ah, aw ma ko waaye nag ma ne waa kon ku ko mën a régler du état rawatina le ministre de tutelle ministre de la culture lu fi dugg ci euh, littérature il est responsable et effectivement ministre de la culture Mbagnick Ndiaye ak El Hadj Cheikh Dramé de la sûreté urbaine à l'époque liste ba ma leen jox liste ba ma Jamra jox te gars yi wax ne Jamra amul liste tax nañu ñu saisir trois cent cinquante ouvrages ñu yóbbu ko jox ko premier ministre premier ministre woo ma ne ne ah saisir nañ ko yëf yaa ngi qu'est-ce qu'on fait ma ne ko ah man de li ma ci xam sama mission jeex na yéenay état yéenay xam loo leen ko def mu ne ma non sa xalaat ma ne ko suma xalaat ngeen def loolu tubaab di wax le retour à l'envoyeur maanaam. comme que Albin Michel l'éditeur parisien moo ko fi envoyé ngeen delloo ko ko ne ma non loolu day yomb ma ne ko ah looy def mu na ma lii ngeen di def yéen waa Jamra chaque 26 juin fële Mamel di dajale yamba beeg héroïne beeg cocaïne beeg lopito bi jógee Nigéria ak Brown bu Ghana police ñëw ñu sotti essence taal ko devant la presse lii tam dañ koy dajale taal ko ma ne ah man xaw moon ne dañu am premier bu intégriste mu ne waaw ah, parce que sama turandoo la attaqué man da nga def ne dama ay turandoo ay nijaay yeeg ñu tuddee ma ay nijaay ak rakku pap sama turandoo direct Seydina Mohamed la kon nag liste boobu génn na jàpp nañ livre yi xotti ko liste la et je termine par un autre problème de liste gars yi dañu sonnal Jamra génn leen liste bi dem leen uti liste Jamra daf leen ameel boru liste nañuy débrouiller bay am liste def leen noonu alors et je termine par une dernière liste Jamra dénoncé na depuis 2009 le fait que état du Sénégal di jox góor jigéen ñi association góor jigéen ñi ak lesbienne ay récépissé de reconnaissance officielle góor jigéen ñi mën nañu am euh, parti politique syndicat mën nañ comprendre ñu am liste kii euh, euh, récépissé de reconnaissance officielle mais luy yoonu association góor jigéen ak récépissé qui est un document très sérieux parce que ça témoigne que l'état te reconnaît officiellement ba coow la bare ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye du mooma woo ñu am ci séance de travail le 17 novembre 2019 ana preuve yi ma ne ko preuve yaa ngi ci nguur Ablaye Wade légaliser nañu neuf associations homosexuelles bi nguur gi ñëwee dolli karaw ci xar mi association de d'homosexuels et de lesbiennes du seize gars yi doon wax nag ma ne leen su ma leen ko joxee waaye jox ñu liste euh, association góor yi ma lan ngeen koy def loo leen ci mën a regle ka joxe récépissé yi kay moo ko mën a régler kon kooku laay seeti kon nag kooku laa seeti Aly Ngouille Ndiaye daal di def déclaration jaare la ko ci le directeur de euh, euh, le directeur des libertés publiques di Mohamed Fadel Kane voilà kooku nee nañ ubbi nañ ab l'enquête pour xam ku leen ko jox ak lu tax ñu jox leen ko ma ne yéen ñi doon laaj liste yi bu ma leen ko joxoon lii di ngeen ko mën bu leen tànqal Jamra ak jox ñu liste jox ñu leen tous alors ba Aly Ngouille Ndiaye defee passation ak Antoine Diome Jamra am na ak Antoine Diome trois séances de travail ci listu góor jigéen yi parce que c'est une violation di code des obligations civiles et commerciales une violation de l'article 319 di code pénal qui condamne le lesbianisme et l'homosexualité affaire Dubaï bi itam temps yëpp ñu ngi ñuy lakkal ci réseaux sociaux yi waaw analyse bi ma ne joxuma leen tous parce que boo leen ko joxee xam nga lu ñuy def ku ne da ngay dem afficher ko sa statut xool waa Dubaï yaa ngi de yaa ngi de ñu ngi nii de ñoo doon de porte à porte di di di di toroxal ay doomu jàmbur yoo xam ne yëguñu ti ni ñu di ay jigéen yu am jom ay góor yu am jom yoo xam ne dañ leen nax yóbbu leen te lañ leen digoon ak lañ ko fekk c'est diamétralement opposé ma ne duma leen ko jox ñu ne ma koo koy jox ma ne ko njiitu réew mi laa koy jox parce que ña fa bloqué que leen mën a indi du réseaux sociaux yi état moo leen mën a defal sauf-conduit ñu dellusi comme ni mu defee woon sauf-conduit euh, ci scandale bi amoon Libye alors liste bi nag am téel téel teg ko nii liste baa ngi nii waaye comme que caméraman yi ay saay-saay lañu dañuy zoom moo tax damay lem la partie prénom waaw ah, moom ñu ngi zoom de <laughs> liste baa ngi prénom nom numéro de passeport numéro de téléphone ak indicatif Dubaï adresse à Dubaï et adresse au Sénégal ils sont cinquante cinq Macky Sall président de la République jot na ko Jamra jox na ko président Macky Sall sans intermédiaire parce que moo ko mën a régler yéen waa réseaux sociaux yi mënu leen ko régler alors kon nag wax laa neel ne si 53 yi 30 euh, ñëw nañu mu des 20 yoo xam ne ñu ngi dund un enfer tegal naa leen léegi audio ka nga xam ne mu ngi liggéey ca consul ba mu dëggal di Jamra wax sonn nañu ramas ba metti na. ñee ngi dem di def ay pousse pousse ca marché pour am lu ñu lekk ñii ñu ngi fanaan ci ay couloir université alo bu ko defee nag bi may jeexal suma waxtaan ak Macky Sall li ñu mujjee d'accord dama ko ne président ñii boo defee yërmande indi leen baax na waaye doyul mu ne ma lu tax ma ne ko ah koo xam ne dafa nekk ca ndóol bitim réew nga jële ko ci ndóol indi ko fii ci réew mi waat ko ci ndóol le problème est entier ma ne ko kon ce que Jamra souhaite mooy boo leen rapatrier nga état accompagner leen ñu mën a am des activités génératrices de ndax ñoom muy góor ñi muy jigéen ñi la ñu demoon uti Dubaï te jom rekk leen fa yóbbu ñu ko amoon fii duñ fi jot voilà juboo am na ci wàllu woowu ba Jamra am na mission yu ñu yónni. Euh, d'abord au niveau de la délégation de l'entrepreneuriat rapide xam nga ñooñu ils ont un budget de trente milliards pour jàppale tout tànk yi ci wàllu microfinancement am na ñeneen ñu war a dem au niveau de l'ANPEJ agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes waaye benn bi nga xam ne man dox naa ko ba noppi mooy les ressortissants de Dubaï yi amul qualification parce que nit ki balaa nga koy dimbali di ko wutal financement mu am métier Voilà, je remercie à cet égard le directeur général de l'ONFP, Office national pour la, pour la formation professionnelle, di le docteur Souleymane Soumaré. ndax moom par l'intermédiaire du consultant de l'ONFP Alaaji Babacar la recevoir na ma avant ma leen di woo d'accord na à pour les rescapés de Dubaï yi amul qualification ñu assurer leen gratuitement de la formation bu ñu tabaskee ak jàmm ba noppi Jamra dana signer benn accord de partenariat avec l'ONFP du directeur général Souleymane Soumaré su boobaa yéen presse bi ñu leen woo ngeen fekke ko pour que ces 53 victimes des réseaux de trafiquants de migrant état bi mën leen jël en charge ñi amul métier ñi amul qualification ñu former leen gratuitement bu ñu leen formé ba noppi nag deuxième état bi ñun dinañu continuer ak ñoom au niveau de la délégation de l' entrepreneur rapide ñu am lu ñu leen jox as tuut ñu mën a liggéey ñu bëgg a def maraîchage defi maraîchage ñu bëgg a def ay élevage yu poulet defi élevage yu poulet ñi bëgg a wuti atelier de vulganisation def noonu jigéen ñi bëgg a defi cuub am lu ñu leen jox ñu mën a liggéey si seen teraanga et dans la dignité voilà kon nag euh, loolu laa ne woon bu ma jógee ci liggéey bi ma président santoon dina dinaa ko restituer n'est-ce pas à l'opinion parce que comme ni ngeen ko xamee Jamra ne fait jamais les choses à moitié parce que am na ñu ma déggoon ñu naan waaye ñoom day fuural nañ ci affaire Dubaï bi rek kenn déggatu leen <laughs> ça c'est mal connaître Jamra puisque Jamra ne fait jamais les choses à moitié topp nañ dossier bi ba loolu xale yi di wax topp kaa ba mu sës jàpp nañu waa ji mu nga ca kaso ba complice am yi am na ku ñu jàpp fii ci Wakaam fii ci euh, Bargny mais la dikk continue de faire la recherche il y au moins six complices yu nekk fii di lor xale yi ak di leen kàcc di lekk seen 4 cinq cent loolu nag Jamra na ko topp ànd sa suñu avocat maître Moussa Sarr ba ñu jàppaleen ñoom ñépp ñu goxi xaalis bi fay góor ñi ak jigéen ñi lañu lañu la ñu jël ci ñoom